ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم خلا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون بكي جلدي بكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنجلين دنيوي دلين زيار دلين بالحق دلين بال دنيانا الشيخ محمد المنتقى سنو برام يقل كو في تويرل كو بلبلو منال ci yéene ko liggéeyal a Cheikhul Xadim sunu borom kàttanal ko di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yépp ak kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi di nuyu njabootu Serigne Mor Diouf Diatty ci dëkk bu sell bu màgg bu tedd bii nu nekk muy Darou Salaam Diouf tàmbalee sunu nuyoo sunu ziyaar ci kilifa bu baax gu tedd ki nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëñ Mor gi yépp di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi te wéral ko yàggal njaboot gi yépp ci ginnaawam di ziyaara bu baax sëriñ Modou Diouf moom sëriñ Touba di jaarale ci moom nuyoo yëpp ak ziyaar yëpp ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér ba lépp loo xam ne way juróom wu baax wa tàmbali woon na ko te amoon yéene jëf ko mu jëfe ko ni mu ko bëggee te defe ko ak sagoom di nuyu bokki taalibe yi nga xam ne ñooy màggi kër gi yëpp noo ngi leen di ziyaare bu baax di nuyu daayira bi nga xam ne ñoom it taxawaay bu am solo lañu amee ci dundal kër Serigne Mor alhamdulilah noo ngi sant yàlla bu baax bi mënu nu mayee tawféex defal nu ngëneel ba ñu dellu siwaat ci dëkk bu sell bi dellu siwaat ci bis bu màgg bi ci njaboot bu tedd gi nga xam ne ñoo nekk ci pénc mi di njabootu Serigne Mor jataay boo xam ne nag dañu ci fàttaliku borom ngërëmul yàlla ci fàttaliku borom ngërëm mu Cheikhul Khadim di ay royteef yoo xam ne dañoo jeexal seeni dund lépp ci lu leen di taxa bokk ci tagg woowu nga xam ne borom bi subhaanahu wa tagg na ko gaañu ko matale ci alquranul karim xam ngeen ne sunu borom mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi def ko ay xaaj ñenn ñi di ay way gëm ñenn ñi di ay way weddi wala iyaadu ci biir way gëm yi daf ca tànn kuréel yoo xam ne moo leen taggal boppam te ñooñu ñooñu ñi nga xam ne li leen sunu boroom sakke ba tax mu wàcce leen ci kaw suuf ñoom matale nañ لولا نك موتاخ بروم بي واخون ني من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر كون سونو بروم تاغ نا غا نيغا خامني نيوم ماتال ناني لي يالا دالا سي سين ديغنت نيوم غا نيو باخ نيغا خامني نك نيوم لا نيي ñom day bokku nañ ci minal mu'minin rijal nga xamne ne xam nañu bu baax li tax suñu borom sak leen ndax moko wax wa maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun euh sakuma nit ak jinne lu may nu jaamu jaamu gi nak fay seddeliko ci ay xaj al ibadatu al muamala al muamala hasana fexe ba wéetal yàlla ci jëf ju baax ci ay cër jëf ju baax jooy fas ci sa xol jëf ju baax jooy tudd ci sa làmmiñ waaye fexe nag ba sa diggante ak jaam ñi nga jëflante ak ñoom jëflante bu mat jëflante ak ñoom jëflante bu rafet loola mooy tax jaam bi matale digganteem ak loola waaye xam nga ne sunu boroom moom day buur boo xam ne du tooñ ab jaamam wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid koo xam ne nag du tooñ moom sunu borom day la muy jëf mooy bépp jaam boo xam ne liggéeyal nga ko liggéey bu ràññiku bu sell bu mag mu pay la pay goo xam ne gu mat lay doon gu sell lay doon bu yaatu lay doon loolu moo waral muy ful sax jëf ju baax bi nit ki di jëf Euh, mag ñu baax ñi nga xam ne it dañoo amaat beneen cër xam ngeen ne sunu borom ci kattanam ak sañ-sañam ak man-manam dafa wax ne maay mayee ku ma soob sama ngëneel sama yërmande sama alal kon nga xam ne bu waxee ne ngëneel a ngi ci loxob sunu borom aji ku ko soob la koy jox wax yërmandeem dafa waxit ne buy séddale wërsëg yi yabsatu risqa liman yasha noonu la koy doxe ku ko soob rek mu jël wërsëgam jox la jël xam-xam jël sañ-sañ ak man-man yépp jagleen la mag ñu baax ñi nga xam ne nag dañu mel ni ay biddiiw ni ki sallallahu alayhi wa sallam waxee woon ci ay saxaabaam waxoon ne asxaabi kan nujum bi ayihim iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni ay biddiiw kenn koo ci roy topp mbóoram faw nga jub faw nga jariñu ñooña nag ñooy bàyyi mag ñu baax ñi toppoon sëñ Tuuba ci diine ndax loolu yi la Cheikhul Xadim waxoon te loolu boo xoolee ci minan boo xoolee ci minanul baaqil qadim fekk ko ca boo xoolee ci irwa u nadim it fekk ko ca muy ay nettali yu wóor yoo xam ne sëñ bee ko nettali saxal ne yéen kat murid yi saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine bu leen daan ñaax loolu la leen di wax kon da fay ñëw ci li sëñ bi waxon momit li jada bil budur wa shumush yàlla dikke na ma jox na ma ay jant way jox na ma ay weer ma gi señ Tuubaa ñoo ñiit koo ca topp fam lay jeme moy Seyxul Xadiim sëñ Tuubaa yar na len def ci ñom melo yi gëna mag kon koo ci tudd di ko waxtaane rek yaa ngi waxtaane Serigne Touba yaa ngi waxtaane lislaam yaa ngi waxtaane yoon wi di leen fàttaliku nag di ngëneel ndax ndaw ñu bari yàlla may na leen tawféex yi bëgg leen te jamonoontewun ak ñoom te àdduna li ñuy wax royteef jafe te nit ki bu amul ku koy wommat amul ku koy xëcc dana ko sóob ci lu gënut kon tey bu ñu ñëwee ci dëkk bii di Daaru Salaam Juuf fekk fi njabootu sëñ Mor Juuf Jetti mi nga xam ne kenn du tudd jàmbaar yi ci biir kër a Cheikhul Xadim te tuddloo ko kenn du wax boroom taxawaay bu yaatu ci kër Serigne Touba te waxuloo ko istuwaaram ak pas-pasam nag ak pësséefam di ko waxtaane ak di ko fàttalee dana tax ñu bari gindiku ci kenn la ci ñi nga xam ne sunu boroom daf ko tànnal askan wu sell askan wu baax askan wu tedd waaye kenn la ci ñi nga xam ne it sunu boroom ubbi na seen dënn ci leeral ko tabbal ci leeru Serigne Touba ba bi Serigne Touba wote nu wujj xam ngeen ne kon ci as-saabiquun as-saabiquun yi ci la bok bu ñu doon wax Serigne Mor juuf jatti dañuy wax ne mom day ci ñe jëk wujj wote bi Cheikhul Khadim wote won ci mbacke kadior ci la bok waye ko amone tawfiq la yi ci sëñ bi am ci mom ciofel gu yaatu waye momit mo am ci Seyxul khadim tiofel gu yatt waye ku ci am cër bu reuy bo xamne ne liggéeyal na serigne touba ba dajale ay ngërëmam yu yaatoo waye waaye liggéeyal na jaami yàlla yi liggéeyal na julit ñi liggéeyal na ay dekkandom dëkkandoom liggéeyal na ay bokkam te ci biir ay mbiram ak i ak taxawayam da nga ci xamee yaatu dënnam nga ci xamee ngëneelam da ci xamee jagleem Sëriñ Tuubaa bi mu jotee digal ci yonent bi alayhi salaatu mu bàyyi ko ci sunu boroom ba muy woote dafa wax ne yàlla digal na ma naa leeral nit ñi ci xamal leen ne man mii maay wéeruwaay maay làquwaay bépp jaam boo xam ne namm naa euh, am yiiwu adduna ak yiwu alakhirah na ñëw jox ma bopam kon loolu boko ko da ngay xamné déclaration la bo xamné jam bu nek war nako koo dégg war nako xam war nako koo jàpp war nako koo jëf amarani rabbi bi an usarriha bi annani malaadun wa himan wa mafsaun faman arada al xayra fi kiltay daarayni falyalus kon day mel ni woote bu mag boobu bi ko Serigne Touba wootee Serigne Mor Diouf bokk na ci njëkk wuyu Serigne Touba bokk ci njëkk jaayanteeg moom ci dëkk boobee nga xam ne moom lañuy ñuy wax Mbakke Kajoor nga xam ne kon ca ñi njëkk jaayante ca ësës te mooy bi yoon wi sosoo ca la bokk ñeent fukk yooyu njëkkoon a jaayanteeg Serigne Touba nag nga xam ne. ñoom la ñépp tege ci ñoom moom moomu ca la bokk sëriñ bi moo ko tërbiya moo ko tarqiya moo ko tasfiya moo ko seexal tibbal ko ay ngëneel dafay mel ni nag borom tërbiya gu gàtt la waaye borom tërbiya gu gudd la ndax boo xoolee li tàmbalee Mbakke Kajoor bi sëñ bi wootee yoon wi diir bu néew la fa def ñëw sañ ci dëkk wala dellu si Mbakke Bawal di dëkkub cosaanam ngir fala la feeñe jamono moom Cheikhul Khadim ginnaaw ba nag xam ngeen ne bi muy ñëw dëkk boobu sëñ Mor Diouf Jatti bokk na ci ñëwoon Mbakke bi mu sañcee Daaru ci deses nga xam ne mooy dëkk bi mu njëkk moomal boppam da xamne yar nit ñi ak defar leen rek tax rabbi biha min al wara ma la yuad ya khayra man rabba wa khayra man waad dëkk bobu nga xamne ñaari at rek la fa def muy desës wasal si nit mu sanc dëkkam bobé di Touba kon xam ngeen ni bi muy sanc Touba Serigne Mor Diouf Diatty mu bax mi bokku na ci ñoña waye bañu ñëwé nak ba ci at mii nga xam ne mooy mille trois euh, nga xam ne day dem ci at yoo xam ne day wane aw melo ak doxin te moo di at mi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Amin Baara feeñ jamono ca dëkk bu sell boobu di Touba ci 1890 wala 1891 ndax xam ngeen ne 86 ci la Cheikh Mamadou wala 88 Cheikh Mamadou Fadel wala Cheikh Mamadou Moustapha ca la ñu mu melni nak Cheikh mohammed Lamine Baara momi bi muy feñ Touba. dafa am ngëneel yu rëy yu mu indaale indaale tedd nga yu yaatu uur bi nga xam ne ñoo jóge woon Mbakke Kajoor ñëw Mbakke Bawal ñëw Daaru Salaam ñëw Tuuba bi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara feeñee jamono sëriñ Touba da caa woo ca kuréel boobe te bokkoon na ci ñam doon woo Serigne Mor Diouf Diatty lan la leen Serigne Touba wax إن ضيف هذا قد أتاكم بجميع مطالبكم جانغي في نيو تاي كات اندالين نالين مولين لولين دون ساكو يالا بروم بي سبحانه وتعالى غرم نالين يونتبي عليه الصلاه والسلام غرم نالين ميت غرم نالين كون داي ملني شيخ محمود لمين بيمي فين دافا اندالي غرمي يالا يوي واي سيرين مول جوف am ca it ab taxawaayu boppam bu yéeme mu di bi sëñ Tuubaa loolu nga gis ne kon ku ku jógee Mbakke Kajoor ñëw Mbakke Bawal ñëw Daaru Salaam ñëw Tuubaa ci tërbiya booba ni ni tërbiya méttee bu ñu bëggee naan du ñu am lu ñu naan bu ñu bëggee xéewlu du ñu gis lu ñu xéewloo di boole mar ak coono te booba sëñ bi mu ngi ci xaaluk taxañ ngir def ci ñoom lim ci bëgg a def ngir li muy waaj te moo di liggéeyal yonente bi alayhi salatu salaam ak yan bu rëy bi nga xam ne daf koy xaar tamit contrat bu mu signé digganteem ak boromam waaye xam ngeen ne bi mu waxee sëñ moor ngërëm wax ko mag ñi dafa am wax ju rëy ju sëñ moor ju wax joo xam ne damay faral di wax ne moom day képp ku féete sawu jant ameel nga ko ak cant amel nga ko njukkal ameel nga ko bor boo xam ne it mënoo koo faggul sa bopp ndax fa ko doon faggoo am na fa te jot ca jafe na bi sëñ bi waxee loolu sëñ Moor daf ko wax ne ginnaaw man maa jëkk a bàyyi koo sawu jant ñëw jaayante kon maa fi jëkk a ñëw fekk la fi nga nekk jaayante yow bu ma sañoon nag bu ma ñëwee fii ba liggéey ba am ngërëmul yàlla am ngërëmul yonent bi am sa ngërëm bu ma delloo ca sawu jant képp ku fafaat dooleem sawar loolu daal booy sama bëgg-bëgg man Serigne Mor Diouf mooy bu ma delloo daal ku dëkk sowu jant bu faatoo ajjana lay dem waaye du dem sawara la ko tàmbalee nag ca yoonu gaal ga te moo di raay ba muy saxaar ga ba ca géej ku fi nekk rek bu ma sañoon ci liggéey bii ma liggéey fi yow du dem sawara Sëñ Tuubaa ko loolu nag daa leneen lu koy joxewaat lu ñuy jaay la njëg gi mooy tërbiyewu yaat yeneen ñetti at sëñ Mor laxasuwaat yeneen ñetti at yoo xam ne dañuy boole sikar jàng alxuraan boole xiif boole mar boole liggéey ndax kër këri Touba booba metti na ñetti at la ko jaayante waat di ko liggéeyal sëriñ ndax làq na ngërëm lu jëkk la moom bi sëñ Baara feeñee waaye lim doon fagguwaat mooy luy tax ñim dëkkal ñim bokkal ab gox ku ca faatu mën a tabbee jën loola nag diirub ñetti at yi ba mu ko liggéeyee ba noppi la Serigne Touba wooluwaat ko ba mu ñëw mu xamalaat ko ne ko li nga doon sàkku yàlla suñu borom jox na la ko ba mu ngi say loxo kon na nga xam ne xoola boobu xol bu yaatu xoola jooju yéene ju rëy mooy faggul sa njaboot faggul say dëkkandoo faggul gox bi nga bàyyi ko ci biir liggéey bi ngay liggéeyal Cheikhul Khadim bu ca kenn dem sawara liggéey bu rëy boobu nag mosu caa dakk mukk bokk ci cheikh Serigne Touba yi nga xam ne ñu ca ràññiku lañ sëñ Moussa Ka ba muy wax dafa wax ne ma dellu lim li Bamba am ci ay cheikh yu sant Diouf ku leen muridu far cheikh Serigne Mamar Diouf jëtti moo ko seexal waa sawu jant gépp moo leen seexal nga xam ne kon mooy làmp bi nga xam ne dafa féete ji sawu jant moom Serigne Mor Diouf mu di koo xam ne ku bari ngëneel la bari jagle mu am sañ-sañ ci borom yàlla defal koy ngëneel moo tax am ko waxoon ne rawatina ko wax lu baax ci waaju baax ñu fay la ko nga daal di nekk waaju baax ki nekk di waaju baax ba waa ju baax te sant Juuf soo ko xamul kookaa di Cheikh Mamar Juuf ku baax la lool selli cosaan tey waajur Cheikh Bamba ñëw def ko mu gën ay waaju baayam ku baax la moo di may Maysa Soosi Juuf yaayam ku baax la bint Juuf amul ku soof ca ama sharain la feeñ fa ñett fa jëtti looloo taxoon ñu naa ko Moor Juuf jëtti baay baa ko tuddee ahmadul makki yu xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko booleeg ahmadul makki yu kon sëñ moo Diouf lañ tuddee ahmadul makki makki yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa ñu boole koog moom waxtu ndawam la jàngi woon quraana ca daara joojee la taree quraana ba mu taree ca yooye fan Seyxul Xadiim ñëw fa kajoor nit ñépp di ko yéem bisub keroog la Mamar Juuf seetaani Seyxul Xadiim ma nit ña doon seetaani bisub keroog la jëkk a gis Seyxul Xadiim Seyxul Xadiim sopp ko ngir layul karim nga xam ne sëñ Mamar Juuf moom bis bi mu jëkkee gisante ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko amee ak cofeel bëggal ko boppam cofeel ga Bàmba waral mu soppi ko looloo waral ca yooya fan mu toppi ko nga xam ne daara jam nekkoon ca wajja ba ko fi Serigne Touba fekkee ya. bëgg gi ko Serigne Touba bëgg ak sopp gi ko Serigne Touba sopp moo tax moom mu dellu siwaat jët ci taggu ay kilifaam dem jaayante ji Serigne Touba nga xam ñaanu Serigne Touba comme doon wax ne wali yahab ma shitu fi rijaali wa fi nisaai nawir bali Bamba ko wax ah, góor ak jigéen ku mu na ñëw ci man ñaan ko ba mu ca yooya fan la bàyyikoo ca daara ja dellu siwaat jëtti ëndaale ja ca yooya weer la mamal génn jëtti fekki Serigne Touba mi kenn dul fatte Mbàkke Kajoor la xewoon Cheikh Bamba jébbal ko boppam jox ko léppam Bamba nga xam ne Mbàkke Kajoor la jaayante woon ak Serigne Touba moom Serigne Mamar Diouf ca ama assasine la Bamba woote caama assasine la ñëw du wuute ba sëñ Tuubaa wootee rek ña jëkk a wujji wooteem ba ci la sëñ Mor Juuf Jatti bokk booba la ñaar fukki atak ak juróom yu mat boobee la ñaar fukk juróom benn yu mat nga gis jàng ci ne bi muy wujji sëñ Tuubaa amul fanweeri at moom sëriñ Mor Juuf Jatti ñaar fukki at juróom wala ñaar fukki at juróom benn moo tax mu ne booba la ñaar fukki at juróom yu mat boobee la ñaar fukk ak juróom benn yu mat lay door a am ci àddunaam moo di moo di xatam ca mooma at la Bamba dem Mbakke Bawal ànd ak murid yi ñëpp dem Mbakke Bawal ca amada sa sin la dem Daaru Salaam yóbbaale leen ñuy jaamu rabbuna salaam nga xam ne fépp fu dem da leen di yóbbaale Seex Bamba mas na koo wutloo ab téere muy wër ba dem Ndakaaru amul ab téere nga xam ne sëñ Tuubaa mas na koo wutloo téere boo xam ne moom sëñ Mamar Diouf dem na ba ndakaaru am téere ba mu leeru géej di dox ba ndar la teere am na ñu naa yoonu saxaar la jaare ñii dañ ne ba muy dem daa dox ba ndar ñii ne daa jël saxaar foofee fa ndar la jënde woon ab téere yóbbul ko cheikh bamba ma am ay fóore déglul ma wax la bis ba bamba seexalee bis ba sëriñ baara ñëwee la seexalee nit ak juróom ñett rakkaati gàmmo ca matasasin jar naa gàmmoo muy 1891 bis bii la Bamba wàcce Cheikh Mamar Diouf keroog la am taalibe yu wuyoo Diouf sëñ Tuubaa gërëm jox ko ngërëm moom sëñ Mamar Diouf mu ne keroog la am euh, taalibe yu wuyoo Diouf Bamba nga naa Mamar sa mbir yéwén na tey tarbiya ak tarqiya lépp mat na tey sëriñ Tuubaa wax ne ko yow de say mbir yéwén na tarbiya nañ la tarqiya nañ la lépp mat na Mbakke Kajoor la tàmbalee ak tëlbiya di dem ba Touba mbir ma mat na cig tarqiya ca yooye fan la Bamba xëy yabal ko jox ko ndigal mu del siwaat leeral ko Cheikh Bamba naa la dale fii ba saw ku la fi gëm man mii la gëm bul soowoo sëñ Touba dana sëñ Mamar Diouf da tàmbalee fii ba sawu jat ku la gëm man la gëm loolu kon assurance la ku la gëm rek man la gëm Cheikh Bamba naa la dale fii ba sawu jant ku la fi gëm man mii la gëm bul soowu kon mu mel ni dellul fa sowwu jant woo murid yi ngeen amu ànd jaamu yàlla daw marid yi Sëriñ Tuubaa ko jox ndigal na ko dellul sowwu jant nga woo murid yi damay liggéey boole naa la cerno soo ko gisee man mii nga gis maay cerno nga xam ne kon Sëriñ Tuubaa moo ko boole waat nga xam ne sëñ Mamad Diouf li sëñ Tuubaa ne ci géej gi lépp da bàyyi xel ne moom liggéeyal na sëñ Tuubaa jëkk muy dem ci géej gi bi sëñ bi demee ci géej gi tekkiwul laxasaayam dafa ànd ak maam Thierno Birahim di liggéey bi sëñ bi jógee ci géej gi fu sëñ Tuubaa ma sa nekk addiyam fekk na ko liggéeyal na sëñ Tuubaa ci béréb yu bëri mu ne li lee taxoon mu féete woog maam Thierno ngir Bàmba moo ko féetaleeg maam Thierno ba mu dellu see fa jënti mel ne jant waa réew ma naa ko Bàmba ko def Bàmbaa ko def ab jant sëñ moor Diop jëtti ba mu dellu see dafa mel ne ab jant waa réew ma naa ko. bàmbaa ko def ab jant looloo waral ba gaa yi daaruy sant seex bàmba jox na leen lu jar ak cant alhamdulillahi nu sant yàlla santaale seex bàmba ak ma mar ngir yàlla mu ne kon waa daaroo ngi sant te am nañ lu jar sant lu tax mooy yàlla jox na leen ku mat a sante te moo di euh, Serigne Mor Diouf jati mu nekk koo xam ne bi ko Serigne Touba gërëmee it kon dafa wax ne war naa ko wutal ak tool tool boo xam ne nag du booy mukk day boole noor ak nawet di liggéey waaye xam nga ne pas-pasam yeggoon na ci bu ma saa yónnee fa Serigne Touba njéeréem xënd yi mag ñi yóbbu da leen di wax ne bu mu laal suuf nga xam ne li yan bay diis diis ku ca sonn da ngay wut garab boo ko wékk waaye du laal suuf loola it mayeen ko ngëneel ak tawfiix digganteem ak Serigne Touba. te moom Serigne Touba ko nungul addiyaam ba mu wér ndax xam ngeen ne loolu Serigne Saliou Mbacké mu baax ma mas na koo seereel daa daayira bu mas a jébbale si ci moom di kuréel bu ñëpp xam keroog ba mu jébbalee addiya ji lan la leen Serigne Saliou wax yàlla na yàlla nungu seen addiya ji nam nungule woon Serigne Mor Diouf jëtti addiyaam yàlla na leen ko yàlla nungul nam nungule woon Serigne Mor Diouf jëtti loolu kon day wane ab dayoom ak meloom yëmut ci booba liggéey it jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu mel ni loola dëkkul ca mela woowa ak ngëneel ya waaye xoolal jagle yooyee sëñ Tuubaa nee na ko ku la gëm man la gëm loolu benn tomb la ku la gëm man la gëm ba ca topp it mooy bi ko sëriñ Tuubaa di defarloo néeg yooyu ci njaareem te loolu di jagle gu rëy di tawféex ju rëy rëy ba mu ko liggéeyalee ba néeg ya noppi ak Cheikhul Xadim ñëw wër ko bëgge ko nu ko bëggee sëñ Moor dafa dajale njaboot gépp taalibe yépp boof ci seen biir Sëriñ Tuubaa ñëw wër leen taxaw kabbar ñetti yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaye xoolal la ko Sëriñ Tuubaa wax ba mu wëree njaboot bi dana ko Mamar Diouf yow de sag njaboot duñ yàqu adduna duñ yàqu àllaaxira maanaam duñ yàqu tey duñ yàqu ëllëg sa njaboot duñ yàqu tey duñ yàqu ëllëg na ko ku fa bàyyi ko woon faatu yi jullee naa ko ba noppi nga xam ne kon sëñ Tuubaa moom moo garantir sëñ Mamar Juuf na ko sa njaboot duñ yàqu tey duñ yàqu ëllëg loolu it assurance la boo xam ne sëñ Mor Juuf jatti am na ko ci Cheikhul Khadim mu mel ni it borom cër bu rëy la boo xam ne ay jëfam ci digganteem ak boroomam ay jëfam ci ngëneel tolluwaayam bu ko suñ borom jagleel waaye mel ni ku xamoon ràññee la lool mbooleem cër bu doomu aadama di am mu am ko am na ngërëm fa Cheikhuna al ko am fa cerno bi takrimi kon Serigne Touba gërëm na a Cheikh Ibrahima gerem na ko kum ku mu nekkal it na ko dégg nga loolu ñuy nettali ci Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba sëñ Mor Diouf génn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall mu yónni ko sëñ moor Diouf dem doxi yónneeb Cheikh Ibrahima Fall ba noppi dem doxi yónneeb Serigne Touba bi mu ñëwee Serigne bi ne ko yow de dafa mel ni xaw ngaa yàq mu ne ko damaa daje woon ak Cheikh Ibrahima Fall mu yónni ma mu ne ko ba dem nga cib yónnee na mu ne ko waa damaa dox ab yónnee na ba noppi door a dox bii mu ne ko Ibrahima Fall lay def ndax lu ma duy ba mu fees mu bëgg a kar boroom rek tu fel fel xam ngeen ne moom. lako ko sëñ bi newon sa defal na la sa njabot du yakku tay du yakku ëllëg mo wone ne ab liggéey denc nañ ko fo xamne dara mënu ko yak ta dara lu ko yak waye non mu jexé ci ci sëñ touba ci defal ko ni sëñ touba def ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek la sëñ Mor def nafsi wa dini summa ahli wal walad wa maskani lakka wadiatun abad kadaaka dunyaaya ma oxraaya xam ngeen ne sëñ bi léppam da koo dëxëñ ci biir borom bi subhanahu wa taala jeexal ko ci biir yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu it la sëriñ Mor def léppam da koo jox sëriñ Touba njabootam yépp di sëriñ Touba lépp di sëriñ Touba ba tey koo tudd ci biir ak njabootam da ngay fekk maam Thierno Biraye sëñ Daaru lenn lu ci nekk ci biir njaboot gi day dellu ci moom waaye kun tudd ci biir njaboot gi rek da ngay fekk mu nekk jëfkat boo xam ne ràññiku na te ku ñëw ci penc mii tey xam n bu ne la njabootu sëñ mor seen taxaway seen pass pass seen dëggu seen selal seen wéral firne na lu mel non ta la ko sabab lépp di jëf ta la koy jurit day bayiko ci bir ndigal ngir liggéeyal Serigne Touba ba jëf ju sel jojo bayiko ko ci ñooñu nga xamne ne sëñ Touba lim teunk ne moy ak mourid ca yoyé moy seenu doxi loola moy seenu melaw tuuba li abdin مريد صادق لهم بخدمه أو بحب أو هديات دانيو واخ ني ا تخي نيلنا الجنا نيلنا جام بيغا خامن دا فاي ويدال برامام كون بلا نيت نيك اب مريد فاو مو نيك جام بي يالا بو دغال اك جامام غو ويرال اك جامام غو سخال اك جامام واي نيك نك مريد صادق كو خام داي نام برامام ام جوبلو سي ديغنتي ما برامام ام سيلو دوخي نيت سي ديغنتي ما برامام bu boobaa nag boo amee sëriñ bu mat sëriñ boobee ko wommat dafa am ñett yu muy doxeek moom bii xidmati te mooy liggéey boobu nga xam ne moom la mag ngi doon jaayante di ko liggéeyal sëriñ Touba nga xam ne saa yoo ko di liggéeyal nga ne li yàlla yi tedd nga yëpp day daje fi yow fa tuuba li abdin yaabudullah rabbahu bi xidmatihi id minhu tatil maganim almashar yi nee na jaam bi saa yu jógee di jaamu boromam boole ci di liggéeyal Serigne Touba nee na mboolem ngëneel yi ak xéewal yi ak koom yi mu ngi bàyyi ko ci biir liggéey boobu muy liggéeyal Cheikhul Khadim moo tax ñoom ñu jógoon na ngir jël seen dund gépp di ko liggéeyal Serigne Touba nga xam ne misaalum sun borom mooy misaalum Serigne Touba masalul lazina yunfiquuna amwaalum fi sabilillah ka masali habba alquran dafa wax ne ki jël benn dërëmam def ko ci yoonu yàlla dafay mel ni ku jël benn pepp def ko ci suuf sunu borom fulal ko ko juróom-yaari gub wenn gub bu nekk def téeméeri pepp mënoon na caa yem waaye da koy ful lu ko soob moom sunu borom tey jii mag ñooñu àndoon ak Serigne Touba di ko liggéeyal benn tool bu ñu bàyyaloon sëñ Touba ñu ngi bàyyal seenu njaboot ay tooli tool. gental gim gentaloon seeni dëkk ak seeni kër fekk Cheikhul Xadim jural na leen ay dëkk ak i kër yu dul gent mukk jural leen mbooloo mu leen di liggéeyal te duñ dàcc mukk bi xidmatin kon mooy liggéey ba aw bi xob mooy cofeel bëgg googu nu bëggoon sëñ Touba lan la leen jural xam ngeen ne sëñ Touba boo ko bëggee mucc ndax daf ko ñaan boromam najj jamia alladhina ahabbuni ghada min al'adabi adabi waltahu bi ragada sëñ tuba da ne yow yàlla ñima ma sopp ma ci seen bir xol nang leen muccel ëlëk yowmal qiyamatul akbar muccel leen bis ba nga xamne fa la jam ñëpp di dajje kon mucc mi ngi ci bir biir euh cheikhul khadim mi ngi ci bir bëgg sëriñ tuba texe yi mi ngi ci biir bëgg sëñ Tuubaa waaye aw hadiyaati nag muy liggéey sa alal ba mu lew la nga moom ko jox ko yàlla te mooy jox ko sëñ bi loola bokk ci ngëneel yi te moom la mag ngi doon def moo tax gis nga sëriñ Moor bi mu amee ngërëm it lam ca teg mooy du daj ci liggéey bi kon day wutal sëriñ Tuubaa tool boo xam ne du booy mukk day boole noor ak nawet di liggéey muy jébbal Cheikhul Khadim kon loola liggéey la boo xam ne melaw mat la ci digganteem ak sunu borom melaw mat la ci ay jëfiin doxin sell sell la te loolu mooy continuer ba léegi moo jaar ca mag ñu baax ña moo jaar ca ñëpp ba ñëw ci sëñ Touba Diouf ba wàcc sëñ Moodu mi nga xam ne du tekki la xasaay moom te doyoon na ci rek bu ne woon ak njaboot gi ko yàlla dénk ñëpp ni ñu mel ci mat mel ko ci sedd mel ko ci tedd mel ko ci ngëneel boo xooloon tey sëñ Touba mi nga xam ne kenn ku nekk boo ko xoolee ci keppaaru sëriñ Moodu Awa Balla xam ngeen ne kon da nga xam sañ sëñ du de mën naa mas naa wax moom sëñ Mouraw Balla ne maanaam ñu bàyyee ma sëñ Touba Diouf de mën naa cee joxe fukk mu wecc kenn kon benn bu wecc fukk mooy sëñ Touba waaye nekk koo xam ne ku dëggu la moom sëriñ Touba ba njabootu sëriñ Touba gi seere doy na ci rek soxna Muumine Bintul Xadiim mas nañuy séentu weer wi ñu naan feeñ nag feeñu mu ne bu ko sëñ Touba waxee day dëgg la nga xam ne moom lu mu wax lu wér la ku sëñ Mourao Balla doy loola woon lu mu ko mës a dénk fa mu ko fekk lam ko ko joxe nam toll lam ca def dara du ci loolu ak doyam diggante ma sëñ Mourou feeñoon na ci ci dénk ko alal di laaj di joxe ba li muy joxe jeex muy leb di joxe te fàtte woon na loola waaye sëñ Touba moo ko fàtte lu mel noonu waaye bokk yi leneen lu doy waar. mooy koo xam ne malaaka mi nga xam ne day jël ruu yi daf laa rus mooy sëñ Touba Diouf te loolu sëñ Mourao Balla waxoon na ko ko na ko malaaka miy jël dogal bi kat saa yu ñëwee dala fi fekk waaye dafa am kersa ci yow daf laa rus kon koo xam ne malaaka yi loolu Seydina Ousmane la ci doon ndax malaaka yi dañ ko rusoon am kersaam sëñ Touba yi dañoo amoon kersaam rus ko ngir melaw yi nga xam ne moom la amoon mu nekkoon murid sadiq boo xam ne boole jëf ak noppi ak fonk ay kilifaam ak waggal leen jël alalam ak darajaam ak sañ ak man-manam jooy xel ci joxit woo xam ne kon fii jamono toll dañuy xam ne sunu borom li jaam bi bëgg ci moom faaw mu di ko jëf te sëñ Tuubaa mboole mag ñi ëllëg bàyyi tey joxu leen tey bàyyi ëllëg dafa boole yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira la leen sëñ Tuubaa boole gis nga fajal aajo fajul aajo ak loo bëgg am ko mi ngi ci biir liggéeyal sëriñ Tuubaa waqdi xawaaiji alladina daamu fi xidmati wa hablahum ma raamu yow sunu borom na faj yitte ñi sax ci di ma liggéeyal te lépp seenu bëgg na leen ko defal kon boo bëggee faju aajo bëgg yitte ju sax na ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa تموي جارك سين بلي يلا بوال اللي نيكو لغيم سيرين توبا دني وغاية توقير وقر الشيخ غا وجعل سيد وهم له خيرك سيرين توبا دنا وغر ما وغر جيخ مي يم تي ماغال سب سيرين وغر دافكو موي سب سن لو ام جوخو فاج اي يتيم بيل بس دي والخدمه كون مريد بي موم لكن مو ورا فاج يتي سيرينم moko war di liggeyal waaye du yem ci di ko liggéeyal moo war di jël alalal di ko jox ndax sëñ Tuubaa nee na defal sab sëriñ muy sa sang jëlal saw yiw jox ko fajal koy yitteel ci jël sa alal di ko jox waaye di ko liggéeyal bëggal sëñ bi bëggal ñëppam ba ca ña nga xam ne ay surgaam lañ sax sëñ Tuubaa nee na nga ko bëgg ndax bëgg gi ngay bëgg ko sëñ bi dana la jural bu la sëñ bi gelmatoo rek nga am almazaya wala wula tedd nga ak yékkatiku mi ngi ci biir liggéeyal sa sëriñ ci biir ñoñam kon loolu bokk na ci liy may nit ki li muy sàkku mu mën koo am mu mel ni pas-pas yooyu dañoo toll ci bëgg ko yoxamal bokk yi gëm googu dañ ko bëgg a dëgëral ci jàpp ne ay pexe la wala ñu jàpp ne ay caaxaan la walla ñu jàpp ne mag ñi dañoo yeewuloon waaye fekk na ñoom yàlla dafa ubbi seen dënn tegtal leen sëñ Tuubaa liñ ñu amoon lépp ci pas-pas ak pësiyëf lañ ko amee bu jamono soppikoo nag léegi pexe ak plan lañ bëgg a tëral waaye mag ñi ñoom pas-pas ak pësiyëf xool a gànnaar dañ daan dox ba gànnaar di xiif di mar wax naa la léegi ne la sëñ Mor Diouf bu masaa di yónnee njaareem bu nu yenoo gaal euh, bu nu masaa yenu xand yi danaan bu kenn teg ci suuf ku sonn na jël wékk ko ci garab waaye bu mu laal suuf am na ku ñuy wax sëñ bu buso mas naa yanul sëñ Tuubaa gaal ci céen ba deru bopp bi teggee ko bi mu teggee gaal gi deru bopp bi dafa teggee ko bi ko sëñ bi laajee na ko loo bëgg la ko fàggul da ne ko naa la gën a bëgg rek naa la gën a sopp rek nga xam ne ne bëgg sëñ Tuubaa mooy ngëneel lu dul jeex ndax mooy xeewal boo xam ne du dàkk kon loolu mooy pas-pas bi mag ñu baax di nekkoon di ko dund di ca liggéey ba njariñ yi ñëw ay pexe du may kenn dara ay naxaate lu la may ci suba gi bu dee dix heures bu quatre di jot nga ñaan waaye ngërëmul yàlla booy dund ngay ànd ak moom boo fi bàyyi ko it ànd ak moom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di feddali sama kóllëre sama diggante sëñ Modou euh, boo gisee ma ñëw ci bis bi nit amul lu mooy ka ko yëg ak ka ko jàpp te loolu sama sëñ Modou waxuma la jàpp gi ma jàpp waaye biir njabootam rek kenn ku ci nekk jaral na ma bàyyi ci yitte yu bare bare cay coono yu metti laa jógee yu tar sax waaye téewul ma ñëw teew daaw daf ma fekk ma tukki xat-xat yu metti laa nekkit téewul ma ñëw maa ngi sant baay yuusu yi ndax nit day bëgg kilifaam muy sëriñam fonk ko ku ne fa la yàlla féetale nga jàpp ko waggar ko dana tax keneen koo ne waggar nga ko fonk ko ko jàpp nga ko loola wér man bu ma ñëwuloon waxtaan it li ma séq ak sëñ Modou doy na ci sëkk ci suñu diggante man ak moom si ak jokkoo ak different, waaye ginnaaw lii mooy sama cër bu warna ko sakkoo bu ma war ko kon maa ngi leen di jéggalu bu baax di leen gërëm sëñ Moustapha maa ngi lay sant bu baax moom it sama wëllëre muy nit ku baax di ku woyef sëñ Abdou Samad maa ngi jaarale ci moom nuyoo mag ñi di gërëm ñëpp ñaan yàlla yàlla na ngeen ko yàgg taxawe lépp lu jëf daje seen Touba fi far defal la ngërëmul sëñ Touba maa ngi lay ziare bu baax ay jërë ngërëm sëñ Modou jërë ngeen jëf waa Touba Vision wasalaamaaleykum wa rahmatullah